asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mercredi 19 août 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy tey doore ko. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. vendredi 21 août 2020 ñu wax ci yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy tey doorete ko mel ni yëglikaay bi di sunu lamb nag moom tey dafa xëy ñëw dugg fa nga xam ne nii moo di diggante Pikine ak Mbour la ko waral nag Eumeu Sène xëy fësal ci xëtam mu njëkk teg ca Baboy ak Mohamed Ndao Tyson Bombardier nekk ca côté ba mu mel ni ki nag Eumeu Sène daal daa mel ni moom la ñuy dànkaafu ci combat bii nga xam ne ca la war a jëm digganteem ak Bombardier muy combat ramas ndax la ko waral y bi xamal nañu ne daal li am ba des ku ci nekk ci waa Pikine yii day jàppal muy Baboy wala muy ki nga ne mooy Mohamed Ndao Tyson seen ba nga revanché ak Bombardier moom maanaam daal daa mel ni mbir ya fa nga mujj neexu la ku yaa ngi fàttaliku 2007 diggante Tyson ak Bombardier kere coow la ca amoon ba sax Tyson ci lañ ko mujjoon aj ci làmb ji dagg ko xaas bu baree baree ki nga xam ne moo di Bombardier bu mbuur baaboo itam revanche ba woon ca Bercy digganteem ak Bombardier kere itam yaakaar ne ku ne gis na fa mu mujj ak ki nga xam moo di Bombardier moo tax ama seen yëglikaay bi jàpp ne moom est-ce que lii waru koo sax ah xaw a yëngal ndax nag li am ba des daal Bombardier moom daa mel ni moo ko waa Pikine saa bu ñu rawancé rek moo cay génn tënam cay génn day baax lool suñu làmb xëy tey ñëw gëstul nu lu mel ni ki noonu am na leneen loo xam ne ni wala ñeneen ñoo xam ni Pikine googa la ñu dëkk muy waaye ko ne Abib moom soo bëggee la am ba des moom école Abib Ndiaye moom sept défaite am nañ ko moo tax ki nga xam ne nii daal moom moo di coach ba moom di Abib Habib Ndiaye ne lii moom catastrophe mënu koo gën a rëy ndax nag li mooy bu dee Koña fa xamoon la moom mu nga États-Unis léegi dal di fay toog Batista dal di bàyyi écrit ba dem tay alliance Baldé moom defet ya ya mu teglante moo bëri maanaam école de Habib Ndiaye daal soo bëggee dégg dëgg moom puusuñu paasuñu te ci daanu daal la nekk fi nekk nii yëglikaay bi xëy ñëw wax nu ko keneen koo xam ne nii moom dafa bëgg a defaru toogaayam ngir na muy paasawaat gën a gën a baax mooy Gris 2 daal ah mu nga fa nga xam ne moo di Lagos daal làqu fa di def la nga xam ne nii moom lay yaakaar ne moo koy may ndam war a jëm ci combat bi war a dox ci diggante mag ki nga xam ne moo di Abdou Diouf loolu la ñu la xëy xëy wax nu ko keneen koo xam ne moom itam gëj naa bëre lool muy duuba lees numéro 2 lees nag tey xëy na génn dal di wax ka mu waxal nag du kenn ku am ama neex lees daal nee na ama neex mu gudd mu gàtt moo war a ñëw mu bëree duuba lees numéro 2 bu géej waay daal tey foofu la xëy tey génn ama neex daal la sampal li nga xam ne nii moom moo di am ndëndëm ba tey bu nu continuer wala ñu dem fa nga xam ne nii moom moo di ca record record moom dafa xëy tey ñëw dikkal ñu ci combat booy Niang ak Tapha Tine mu mel ni ki nag am na ñoo xam ne day wala boog waa Leewtoo boo sàgganee ndax duñu ñàkk boobu combat abu nduur a xëy tey wax nu lool ndax am na ay promoteur wala promoteur boo xam ne mu ngay dox doxinu ndew ri du ca suuf te itam fas na yéene fay mbër ya lu ëpp sax la leen waa Leewtoo fay ndax nag yëglikaay ba xam nañu day ba des ñaari mbër ya ku ci nekk ba ngay dem yóbbaale nga ab sec ak Leewtoo waaye li am des daal ba nga demee ca compte moom xaalis fa picc maanaam cent franc fekkoo ko fa ba tey rek war a xëy ñëw wax ñu loolu moo tax ba tey continué na diñu xam nag boo sàgganee tey ji ci àjjuma bi moom jàppal ne mbir daal daa ne tey lañ ko fas yéene leeral muy tafaatin booy ñang ak ki nga xam ne nii ñoom noo di waa Leewtoo li am ba des daal loo ci mën a dégg moom am na koo xam ne moom ab promoteur la mu ngay dox doxi ndew ridu ngir nangu combat ba leneen loo xam ni wala beneen combat a nekk moom bu bëree ak rëg-rëg fukki yoon rëg-rëg da koy daan daa mel ni ka nga xam ne nag mooy mën a seeru guy gi nag di jili wàdd moom kon tontu forox tontu na leen nee leen yéen ñiy wax loolu li ngeen di wax yéen la angaas waaye kii di guy gi moom daan na fi ay mbër yoo xam ne nii soo bëggee dégg dëgg duñu sax moroomu ki nga xam ne nii ba si mooy waxe a seeru ki nga xam ne moo di guy gi borom gi wala guy gi bu géejawaay ba tey bu ñu continuer fa nga jot a a bon jël ay xaram sampal ko ay fetal ne ko boo waxee ñu faat la daa ni kayra nag moom dem na fa mbaxana doone benn maanaam daal dugal na pelantam record a xëy tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu mel ni ki yàgg maar tey la vendredi ñu xëye am taw taw moom loo ci mën a dégg xéewal la xanaa kay nawetub jàmm la ni ñaan rek te yàlla def mbay mi naat te ñu muurloo ko barke nabil Moustapha sallallahu alayhi moo ko waa Leewtoo TV di leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen nag si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar si at bu bees bi parce que nee maa ngi jéegul asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi internet yi nuyu naa leen maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall ñu ngi nuyu képp ku mu mën a doon rek foo mën a ne si àddina bi di ñu suivre rek di ñaan yàlla xam nga at mi dàq yi nga xam ne ni moom lañ passé woon te yàlla ma ñu tamit ñu di ko fekk at yu bare bare bare di ko tal di ko fekkee xam nga di wax ne daal yàlla na ci yàlla jaare faj ci jàngoroy àddina bi yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam at bi daal na ànd ak ay musibam dem waaw waaw na ko yóbbaale nañu trop trop doy na waar <laughs> doy na waar waaw kon nag ñu ñëw nag eh, ak sunu lam commencé ak sunu lam sunu lam nag dafa xëy daf benn eh, taxaw seetlu nee na Bombardier daal du may dara ñi nga xam ne moom mooy waa pikin ku si mel ne def na ko ak Baboy def na ko ak Tyson nee ñu nag ginnaaw ba ko Eumeu seen daane est-ce que tamit Eumeu Sène warut a tiit ndax nu boo Bombardier mel ak waa euh, Pikine. waaw rawatina ci ay combat revanche ah, boo mm. xoolee aller retour yi mu fa def yëpp bu ci ne maanaam da caa génn moo Tyson gis nga. kera ca lañ ajowoon Tyson 2007 stade Léopold Senghor aj bu metti ba mook baabooy ba ko baabooy daanee Thiès ba ñu ramassé dem fa nga mooy Bercy dafa fayu tey Eumeu mi ko daanoon ah loolu itam war na caa def jàngat ndax nag boo xoolee combat retouram yëpp amu ci bu mu ñàkk Pikine kon defe naa loolu Eumeu Sène ci bàyyi xel yaakaar na ak staffam parce que Bombardier mbër la bi nga xam ne ni comme lu may wax rek maanaam euh, exemple la tey si mbër bee ko yor après lay lay ñëw mais lu ci mën a dégg daal loolu nag xam naa ne Eumeu Sène dina ci rendre ko ndax Eumeu itam du mbër mu ndaw mbër mu mag la te yàgg na ci làmb te itam xam a euh, ne mooy diggante Mbour ak Pikine nañu dem fi nga xam ne moom mooy Fass ne ñu daal ginnaaw na bi nga rek daanee est que tey daal Gris mi war a jàkkoonte ak ki nga xam ne mooy Abdou Diouf kiiwam yi rêve am mooy daan ki nga xam ne moom mooy adversaire am muy Abdou Diouf waaw de defe naa moo war a nekk rêve maanaam parce dafa jóge ci defet bu méttee métt ndax kere wax na ma ko ci micro bi que ni moom sursis la nekk ma ne ko lu waral sursis mu ne waaw ah, parce fi mu jógee tax waaw nit nag boo jógee ci yenn defet yi moom defe naa ne war nga suuraale bu baax a baax que ni li nga jëmaat du yomb te kon war nga mën a liggéey moo tax xëy na mu a jàmmaarloog Abdou Diouf boo xam ne itam ah, na seen Forza ko fa daan kon daan na magam muy Gris Bordeaux daan ay yeneen i magam kon yaakaar naa tamit na jàpp ne am na adversaire ndax mbër moom du ay affaire bi ki ki pour ñeme la am licence jël sa avance jàpp ne Ndeye Coumba Fall à am na lu mu bëgg te am na loo xam ne mën na ko am ci yow. Mm-hmm. Babacar nag suñu jógee nag fi nga xam ne mooy Fass dañu dem foo xam tamit sorewul dara Fass muy école lutte Abim Ndiaye Babacar ñoom ñoom nañu nag zéro victoire sept défaites nee ñu nag ñi nga xam ne ñoo nekkoon kàngam si biir écurie bi ku si mel ni Koña moom mi ngi États-Unis Batista moom jógee na foofu Abib Ndiaye dem fi nga xam ne mooy Taïchinga Alliance Balde moom kenn gisu ko day yéeg ak wàcc par rapport ak carrière am Abib Ndiaye bi nga xam ne nag moom a école bi moom daal lu ma gis ne ne catastrophique Babacar loolu kay ëpp na catastrophe sax école boo écurie boo école boo xam ne nii nga loolu moom waxuma la catastrophe mais lu rëy rëy la mbër yu mag yee itam gisatuñ leen koñaa ko nga xam ne léegi mu ngi États-Unis toog Batista toxu na dem na Tyson euh, kii fi nga xam ne mooy Alias Balde ay mm. loo xam ne nii loolu Abib Ndiaye wax moo ne am na defe naa li war mooy toogaat xool lan ngeen war a def lu manqué ak lu ngeen war a liggéey pour mën a améliorer pour mën a defaru parce que euh, maanaam euh, dafet day am waaye nag jéem ko saaf naar lijjanti ko ba nga xam ne ni ëllëg su ñëwatee mu bañ a demee ni mu demoon loolu du passé loolu nag li koy maye mooy liggéey jël yi au euh, ki nga xam ne mooy les de itam defe naa moo ko ama neex combat bu war a mën a nekk la ndax ñaari mbër yu mag lañ ku ci ne am na loo def ci làmb les de nag na bëree defe naa ca bàyyi ma la mujjoon bëree te boobu ba tey gisaatuñ ko mu wàcc te tey soxla na bëree Mbacké dafa bokk ci lamb ji dox nañ fa ay combat nag combat yi yàqu mais yaakaar naa diggante mag a neex itam promoteurs yi war nañ cee mën a wax jéem koo yëngal ba xam fu ñuy mujjee parce que mbër la bi nga xam ne daa bokk si lam muy les deux mhm. Babacar nag suñu jógee suñu lam dañuy dem fi nga xam ne moom mooy record record nag si xalima Abou Nour moom nag def na benn papier boo xam ne nee ñu daal am na beneen promoteur bu ko xam ne kursuke suufu ki nga xam ne mooy euh, Pape Thialis Faye ginnaaw nag bu mu yégee ni nag ñaari mbër yooyu jot nañu ay chèque mais bu ñu demee banque ba daal banque ba dara amu fa maanaam chèque blanc la léegi nag nee nañu tey àjjuma daal moom mooy dernier délai xale bi te daal bëy day way mbuus wala boog lu sëgg bëre rek Babacar tànk tànk day tàlli mbaamu dama daal tey waaw muy loo xam ne daal ah li ci am solo daal mooy combat bi moom déclaré woon nañ ne Leewtoo taxawal na ko te ba tey defe naa loolu mooy li nekk li ci des nag mooy ki gëstu moom gëstu na ba xam na ne ne na ca lam ñu wax sec balaa la jot maanaam bañ demee compte ba fekk ñu fa xaalis loolu nag daf ci am loo xam ne ndey mbil gi ñoo ko mën a confirmer que gëstu itam muy di na ay suuf sam loo xam ne ni itam lu la waaye li am solo mooy que ni comme nañ tey mooy jour de vérité bi su dëgg bi ci combat boobu ah nañu déglu ba xam Pape Thialis Faye itam bu fekkente ne loolu ñu wax lu am la yaakaar naa war na ci jéem a sàkkum pexe parce que nag combat bu toll noonu doo ko siiwal ci àddina bi ne taxawal nga ko a mois te dara kiiwu ci bu dee amee na noonu ñu ko waxee moom yaakaar naa du lu gën kon li am solo daal mu jéem a xool mook estafam nu muy def ak mbër parce que yaakaar naa ne ba mu doxee combat bak bi ko mbër yi nangulee moom matul sax 24 heures kon yaakaar naa ñooñu am na lu mu seq ñoom ci relation ak cër bu ñu ko jox te itam nekk na koo xam ne moom Pape Thialis am na yàggu ñëw yàggul si lamba am na lu mu ci def parce que ku ne yaa ngi fàttaliku am na fi saison 2018 la su ma juumul boobu am na lu mu lamb ci demee ba mu ñëwee am na lu mu defam bi mu ñëwaatee ren itam déclaré na ay combat yoo dañ ne yi combat mooy combat kon defe naa li ma koy wax daal man en tant que mais en tant waxuma nag en tant kuy liggéey ak moom kese parce que bu may wax damay wax loo xam ne c'est pour tout le monde yaa ngi dégg combat am na ay combat yoo xam ne daal bu ko rëccee moom promoteur bu ko jël kon mënaguma wax loolu kon ba na dama koy bàyyi ci seen compte mais li ci am solo daal mooy ñoom ñi ko déclaré nañ ko jéem a ko jéem a yeggale ko quoi parce que am na ay combat yu neex a yoo xam ne am nañ ko Tapha Tine ak Boy Niang dañuy dem nag si kombaak guy gi ak ki nga xam ne mooy Reug Reug ginnaaw bu waa kër gi Reug Reug waxee démb te nag comme la ñuy wax rek tontu du forox te nag ki nga xam ne mooy Jibril Wade di manager ki nga xam ne mooy guy gi nee na guy gi daal daal na ñoo xam ne noo gën a ay fuuf Reug Reug kon boog ñuy wax naan Reug Reug moo mën guy gi dañoo xamul rek pour la li am solo daal mooy li ma la wax rek ñaari mbër lañ yoo xam ne nii ci làmb buñ demee ci làmb dóor yaakaar naa ne guy gi mooy ci mooy mooy mooy d'avancer Reug parce que li tax mooy expérience bi at yi mu ci def ak mbër yi mu jot a bëreel mm. ak bés yi mu am yaa ngi dégg rëg-rëg nag mu ngi ci yoon woowu di ñëw tey nag làmb boole na leen bi leen làmb boole nag ku ci ne am nga ay atu yoo am ku ci ne am na ay fort yu ne ci yow mais am na ay faiblesse yu ne ci yow nañ ci bàyyi xel bu baax a baax nag xam naa moo tax mu génn wax mm-hmm. te nag loolu c'est normal defe naa bu ñu waxee jëmale ci yow ne la yow amooy sens am nga droit génn défendre yow say argument mm-hmm. li mu def ni mooy lii yoon waaye li am solo daal mooy rëg-rëg nañ ko wax ne adversaire la am te defe naa xam na ndax Reug Reug it du foye làmb guy gi itam nag xam ne adversaire la am te guy gi du foye làmb ndax ñoom ñaar ku ci ne boo doon foye làmb fii nga yegsi tey ci doo fi yegsi si bëri doo dañ dem nga xam ne mooy mooy bëre simple sax mbër bi général Malika day def bëre simple mais nag bilan bi interview bi ñu ko def nag si bëre simple moom li ma gis daal nee na saison bi mooy saison bu catastrophique pour moom parce que ñaari trophée kese la si gagné ñaari trophée la si gagné def si ñetti final gagné 1 million 400 waaw muy loo xam ne daal moom ni jàpp ne lu catastrophique la ah waaw euh, parce que tamit daan na dugg ci saison parce que leen ni mu xaw a ñàkk ci ay combat xaw na bëri moom général Malick par rapport ak saison ba la ñu bi muy nekk mais ren bi mu simple bi baaxul xëy na moo tax mu amee mbir yi demee nii ak corona bi ñëw te affaire yi waaye mbër la moo xam ne itam loolu bu mu ko xeeb parce que li tax mooy ah euh, am na ñoo xam ne participé bokkee ak boykere toujours sur record boykere ginnaaw nag bu ko ay sàmbaam booy fekkee këram dóor dóor ay sox nag si kër ga bu yóbbu nag ay laadu moom nag nee na déposé na plainte démb pour daal nu xool daal fu la euh, euh, yooyu sàmba booy yooyu fa lañu dugal ay xaram ay laadu mm, waaw loolu koy lijjanti ko daa jot moom parce que ku ñuy sañ a ñëw sa kër yor ay fetal kagulu ñëw tiim la ne la xar yi mbaa sa bakkan ah, ndey kumba loolu waxuma la peine waaye raw sa peine ñëpp ci war a dugg pour jéem a xam ñooñu fu ñu nekk ndax nag genre yooyu moom bu ñu leen bàyyi ci réew mi ñuy ah dinañ la fekk sa kër gee nga toog ñu tegal comme niñ ko def ñu def te xam naa <laughs> leen di leen euh, balaa boobu ma nuyu sama yaay mais soo nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astane ne déjà Brahma Chéri Khadija Diallo di nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Gueye Baye Fall Jàmmagal Papa Cité depuis États-Unis maa ngi koy nuyu Asek Chéri Khoudia Seck itali Italie maa leen di nuyu di samay doom Maam Jaara Penda Rokhaya Grand Fallou ak ki nga xam ne mooy euh, As Tandine Euh, bu ndaw depuis Thiès Babacar. waaw nuyu nañ ñëpp jaar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm xam nga du ñu fàtte suñu soppe yëpp ñu ku ci fu ci waay mën a nekk rek ku mel ne Ngagne Sow maa xam nga ñoom Habib Ndoye ñoom maa ngi leen di bëggee bu baax a a baax ñoom Mbacke Kébé Italie Napoli Serigne Ndiour tamit maa ah, bu muy doomu ñoom tuuti yaay Sar Khady Rose Ndiaye xam nga ñoom sama gars yi waa groupe baax rawatina président bi maa Samba Dieye ñoom Sora Malick xam nga Khadim Dia sëñ ngi lay bëggee bu baax a baax nuyu Saraka Baye Moussa Dia nuyu ñoom Lamine bu ëmb seen Issa xam nga ñoom ñëpp Elimane bu Tafatine ñoom ku ci nekk rek maam jaara képp ku ne groupe baax rek Babacar rek lay bëggee di la ñaanal jàmm Mamadou Diouf laay bu Fass di fàttali ko ne foofu rek mooy suñu kër gudde mooy suñu lépp daal groupe baax di nuyu képp ku fa ne mais 100 pour cent Babacar bi tam du leen fàtte sama soppe yi ñoom Cédric ñoom Jiga ñoom Pape Ndiaye xam nga Grand Laye Baye Sall Paris ñoom ñëpp maa leen bi ak fans club Leewtoo bi ñoom Serigne Cissé bu Brésil doomu nday général Malika ñoom Fadi Raku Bombardier ak képp ku fa maa ngi lay ñaanal jàmm ci bisu ajuma bi ak caat bu bees bi yàlla defal ñu jàmm ak mais yàgg maar tamit di la nuyu bu baax a baax di la ñaanal jàmm di la wax ne tey sa turki njaareem rafet nga tey moom dellu nga jurbeel mais nuyu tamit sama ki ma ñawal tey muy Elhadj bu jën a